Afe Diaw di commerçant bu mag bu ñu ràññee lool ci dëkk bu seen bii di Touba ak yëngu-yëngoom ci wàllu politique jamono ji nag gën na ko fësal ci moo xam ne mi ngi ko woote woon ci këram gi nekkee Touba Ndamatu bàyyeekoon fu nekk ngir wut si woote bi nga xam ko foofee mu nekkoon nag mbooloo moo xam ne jóge woon nañ fu nekk ngir ñëw fekk mi leen dajee ba ñu jëlee kàddu ga yëkkati ay kàddu yu sedd yu rafet jëmale ko ci ki nga xam ne mooy Afe Diaw moom nga xam ne jamono ji soobu na ci wàllu politique Idriss Seck ko yónnee délégation bu am solo boo xam ne ñi mën na si na caa ràññi ki nga ak yeneen kilifa yoo xam ne ñëwoon nañ ngir fekk mi la ndaje bi mu jëlee kàddu gi moom Afia Diaw mi nga xam ne jamono ji sóobu na di xam ne ne jamono ji Sénégal ay jafe-jafe yoo xam ne mi ngi koy jànkonteel ci wàllu politique Macky Sall li nga xam ne moom la warloo ak askanu Sénégal daanaka lu bari def ko loolu tax nag moom mi nga xam ne ak jaxasoom ak Serigne Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq ràññee nañu ko lool mu daal di jox bopp Idrissa Seck ngir ñu ànd fas yéene liggéey ba jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dënmal ndam la ñu daal di koy jël délégation boobee nga xam ne moom la Idrissa Seck yebaloon ci njiital Manet Fall di jëlee kàddu gi itam rafet lu baax ñëw gi nga xam ne Afe Jaw fekk si na leen ci boobee liggéey ñuy séentu Idrissa Seck ci dëkk bu sell bii di Touba Afe Jaw am na ci sasu yaatu ngir rentre politique am ci ki nga xam ne moo di Idrissa Seck